waaw kay mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki téléspectateur yu Thiam Sono TV yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu ak di leen baal di ñaan yàlla mi am jàmm ak salaam ak sutura yal na yàlla defal nu ko àdduna ak alaaxira tey ñu ñëwoon fii ci Pikine tabaarakallaa fekk fi suñu benn mbokkum taalibe boo xam ne day daan dooleem di yëngu ci wàllu ñaw ay ensemble blouson yu rafet bu ngeen xoolee blouson bi bii ma sol am sama logo. am sama lépp am na jiital am na blouson am na tubay ak lépp bu la neexee mu defal la ko trois pièces comme bii ma sol bu la neexee mu defal la ko cinq pièces tabaarakallaaw muy liggéey bu rafet bu am solo boo xamante ne mi ngi koy def moom nag moo sponsorisé seen émission bi nga xamante ne moom la Oustaz Sidi Ahmed Mbaye di def muy firi Taysiir bi incha allah moom moo ko sponsorisé ba tax muy ñaw blouson yi jox ñu ko ndeysaan muy geste bu rafet Alaaji Omar ñu ngi lay nuyu di la ziyaara si sa ngaari ñar meew waaw Baye ñu ngi lay fay eh, di la béggee bu baax eh, nga baal ma rek eh, ñu nuyu àddina bi di leen ziyaar bu baax nuyoo beeg ziyaar bi nag dañ siy jiital xalif général de tiijan Tidiane sëñ Babacar si Mouhamadul Mansour ñaanal ko yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal ba yéene gi ma am si kër maamam Cheikh Seydil Hadji Malick yàlla mottali ko waaye di nuyu sunu buntu si maam Cheikh Seydil Hadji Malick muy sunu yaay soxna ummu Mouhamadul Habib moom it ñaanal ko buñ ko nuyoo rek nuyu neen Pape Maodo si nuyu sëñ Babacar si Abdou Pape Mansour ak képp kuy njabootu maam Seydi Hadji Malick rek ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen bége di leen ziare. tabaarakalaaw jërëjëf El Hadj Omar ci nuyoo yu sell yooyu nga xam nuyu nga ko xaalif général des tiijan ak mboole njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick Omar dañ la doon laaj métier mi kañ nga ci dugg. waaw xaaj Mansour mën euh, mën naa wax ni métier bi yàgg nañ si yàgguñu si ndax ñu ngi siy dugg 2012 waaw 2012 lañ si dugg ba 2017 nag am na si loxo yu ñu nekkoon mais ñu ngi beru daanaka 2017 nekk fii di liggéeyal suñu bopp waaw si yooyu daal lañ nekkoon 2012 lañ si dugg 2017 lañu beru. Ah, macha allah kon mbokk yéen a ko déggandoo 2012 la ci dugg 2000. Ah, 2017 yàlla dogal mu beru ci beru yëf boppam kon maa ngi sàkku mboolem kii téléspectateur Thiam Sono TV tey yëngu ci wàllu moo xam société nga yor wala moo xam lépp loo yor loo xamante ne da ngay soxla yu mel nii euh, nga ñëw jàppanteeg moom te boo jàppanteeg moom boo ñëwee mu defal la ci xéewal ndax bari na ñoo xamante ni si moo leen di ñawal seen i blouson bokk na ci am na ay militaires yoo xam ne moo leen di ñawal sapeur pompier ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla liggéey bi yàlla na ko yàlla barkeel ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Omar mbaa liggéey bi yaa ngi ciy gis sa bopp bu baax. waaw ñu ngi si sant yàlla nag ndax wax dëgg yàlla comme daal tàllalul kenn sunu loxo e, fëgg ñu buntu kenn ñu ngi siy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax e, di ñaanal tamit ki ma ko jàngal métier bi muy Serigne mbake ñu gën koo miin si maam la moom it yàlla na yàlla barkeel liggéeyam ndax wax dëgg yàlla ñu ngi siy sant yàlla nag. ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax. Ah, macha allah loolu yombul nit jàngal la métier nga taxaw ne diw moom a jàngal métier maa koy sant di ko gërëm lu noble la kon yow it yàlla na yàlla taxaw la ci barkeyonte bi sa atelier bi ak société bi nga yor yàlla na yàlla defal la ci lu weesu sa njort ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci barke seen soppe boobu di Cheikh Sidi Aboubacar Sy waaye ni ngeen koy gisee nii nag day tagg yonente bi sa alayhi wa ndax yàlla dogal na Pikine moom ah ñi fiy tagg yonent bi bu bari nañu lool ñoom ñuy tagg yonent bi bi ñuy ñëw ci seen daayira yi ñoom ñu nekk ay xale yu ndaw mais bëggal ñu seen bopp nag waaw ay xale yu am yar lañu ay xale yu am teggin bokk ci groupe bi nga xam ne mooy nekk fi ci ginnaaw raay di gu groupe Shababu Rahma kon tabaarakallaahu mm, mi ngi noonu daal mi ngi noonu dañoo bëgg tey dañoo bëgg lool ndax teraanga yi nga xamante ne Alaaji Omar def na ko ci Thiam Sunu TV ah incha allahu rabbi du fi yem nag kon mbokk yi maa ngi sàkku ci yéen yéen nga xamante ni yéenay suivre Thiam Sunu TV tey bëgg yu mel nii ngeen ñëw ci Alaaji Omar Cissé mu leen koy defaral Omar ku ko ku la soxla woon nu muy def. waaw ku ma soxla woon daf may woo si 77 276 55 35. place bi mu ngi nekkee Pikine ginnaaw raay waaw ku ma soxla rek moon nga ma woo si numéro boobu mooy whatsapp bi tamit. kon mbokk yi numéro baa ngoogu boo ko bëggee appel woo ko ci numéro bi même am na whatsapp aussi boo bëggee mu envoyé la ay liggéey yoo xamante ni liggéey na ko kon maa ngi sàkku ci yéen ndaw la di liggéey di daan dooleem moo doon def ni gars yi di def mais defu ko ubbi fi boppam am jom di daan dooleem kon maa ngi mboolem ku naan ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah nga ñaanal ko yàlla te itam liggéeyam bi ngeen ñëw jàpp di indi seeni commande mu leen koy liggéeyal ngeen ne lii rafet na rafet na jekk na macha allah kon yàlla na yàlla dolli la wér yàlla sàmm la aar la fa yàq yegul ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan mooy doon say kàddu yu mujj bu ko defee ñu tëj waaw kàddu yu mujj yi moom eh, sant la rek ndax li yombul ndax mun naam am buñ ko bëggoon feneen di dinañ génnee xaalis bu weex tàll wa waaye di seedeel ñi ñuy seetaan yëpp eh, Mansour ku baax la sànq si suuba la ma indi matériels yi fekk ma fi mu ñëwaat ba si si nga xam ni kii ku la yéene nga avancé rek moom moo koy def ñu ngi lay sant di ñaanal sit bi tamit fi nga bëgg mu egg fa yal na kawe sa njot si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñuy déggee ay Asfiyahi ak Malikia TV. dëgg yàlla yàlla nañ dem ba di fa dégg Thiam Sono si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amin sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi waa Thiam Sono TV El Hadj Omar Cissé Ngok borom ensemble yu rafet yu jekk te daa dëgër baax na ci seddaay baax na tàngaay mën nga ko sol seddaay mën nga ko sol tàngaay ndax bu seddaay bi ñëwee nga sol blouson bu tàngaay bi ñëwee nga sol njëlaay longu kon a Hadj Omar ak mbokk yi yëf yaa ngoog wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.